Allahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala mun nangul ñu mboolem jaam giñ ñu ci def ñoo ngi nuyu ak di ziyaare sëriñ bi di ñaan yàlla yàggal ko fi te ko wér ba mu àggale mboolem naalam yëpp te ñu ànd koog moom mbokk jullit yi dañuy dil si nag ci téereb yàlla bi tabaaraka wa taala nga xamante ni moom ci boppam moom yàlla moo ñu digal ci ñu koy jàng moo ñu digal itam ñuy góor góorlu ngir xam maanaaya buñ ko xamee ba noppi moo ñu digal itam ñu koy jëfe ginnaaw nag daf ñu digal ñu koy jàng te alquran ku koy jàng ca nañ la ko digale war naa jeex jeexiital ci sa xol war a jeexiital ci say jëf kon war nañoo xam boroom xam-xam yi lu ñu wax ci lu liy tax alquran jooju jullit bi jàng mën a jeexital ci xolom loola nag am na tomb yu néew yoo xam ne moom nañ ci jukki tey bokk na ca lay tax alquran ji jullit bi jàng mën a jeexital ci xolom mooy fam yi tàmbulee di jàng rek mu xam màggaayab wax ji muy jàng mu xam màggaayab wax ji muy jàng muy mu xam màggaayab baat yi alquran làmboo bu ko xamee ca lay xamee na mu kawee ca lay mën a jox itam cërëb yàlla yàlla tabaraka wa taala cër bam yayoo ca lay mën a xamee itam yërëm gi borom bi tabaraka wa taala yërëm mbindeef yi ba ci waxiin mu wàccee boppam ca kawem ga ba man leen dégtal bañ mën a xam lan la leen digal ngir ñu tënku ca ak lan la leen tere ngir ñu mën koo moytandiku kon loolu bu ko kiy jàng alquran njëkkee jiital mooy mu yëg ci xolam màggaaya wax ji muy jàng dana ko dimbale ci wala benn la ci yi nga xamante ni dana ko dimbale ci alquran mën a jeex ital ci xolam su xamee màggaayab wax jooju ba noppi ca lay mën a xam yab ka ko wax muy yàlla sunu borom tabaraka wa taala moo tax nag kiy jàng alquran ci njëlbeen gi dafa war a teewlu ci xolam màggaayab aji wax ji muy yàlla miy wax alquran ji nam koy xamee nag mooy mu xam ne li muy jàng lim tiim di ko jàng wala mu koy tari bokkut ci waxi mbindeef yi waaye waxi ka bind mbindeef yi la bu xamee ne waxi ka bind mbindeef yi la rek danaa xam ne lu rëy la tiim nag lim nar a jàng lu rëy la ndax boo borom bi waxee ci laaye juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci suratul waaqian ne laa yamassuhu illa al mutahharun nee na alquran ji ka war ci moom ka kam jaadu mu laal ko mooy ña amee ak làpp ca lay xam ne ca la xamee ne ginnaaw am sam amul sañ-sañu laal alquran ak lëwër alquran ci ay loxoom bu fekkee dafa laabut noone la téye la wattu kayiti alquran ba amoo sañ-sañ yow jullit ci laal ko te laab laaboo la war a xamee nag loola laab ak bitti la waaye laab ak biir itam kon séentu nañ ko ci moom ndax lu nekk nag lam ëmb la ca biiram moo ko ëpp solo kon yaram li am am solo lépp lam ëmb tamit xol moom moo jiitu kon war naa xam ne buñ ne ko laabalal sa kaw yaram noonee lañ ko diggalee mu laabal xolam ci xam màggaayab yàlla tabaraka wa taala kon xolom boobu bu laabut leeri alquran mën na caa bañ a tàbbi ñu dégg ci ne ginnaaw doon ne loxo bu jóg mën a laal alquran naka noonu itam doon ne làmm ñu jóg war a mën a jàng alquran waaye doonul ne itam xol bu nekk itam moo mën a dékku leeri alquran ñu dégg ci kon li war mooy ni nga laabalee sa kaw yaram te sa làmmiñ bokk ca cër yooyee nga laabal ko ci wax lu ñaaw noonee nga war a fóote sa xol nag ba mën a dékku leer ak alquran kon màggal wax ji la cay sës mooy màggal ko ko wax te it màggal ki wax wax jooju te mooy yàlla la cay dimbale ki jàng mooy buy jàng mu méngale ko di xalaat melokaani yàlla ak màggaayam na màgge ci ay melokaanam moom yàlla màgge ko ci ay jëfam yu rëy ya su teewloo ne ki may jàng ay waxam mii ji mooy yàlla ma bind aras bind kursi bind asamaan yi bind suuf bind itam li nekk ci diggante asamaan ak suuf muy jinne ak li ñuy doy waar ak doomu aadama ak rab yi ak njanaaw yi ak gàncax gi bu settantale yooyu yëpp itam te xam ne ki ko bind kenn la waaye ka koy wërsëgal moom yooyu yëpp nag ak yu ñoom kenn la te mooy yàlla ka am kàttan ci ñoom nga xamante ni ñoom ñëpp yooyu ñu tudd ci ay mbindeef ak ya tudd yépp mi ngi ci ron kilifteefam nga xamante ni su leen xéewalee ci ngëneelam la waaye su leen mbugalee itam ci maandoom la mu xam ne ki muy jàng waxam jiide mooy yàlla ma xam ne moo waxoon ne haula ilal jannati wala ubali mooy sàkk ci mbindeef yi ci yërmandeem daal ne ñii aljanna laa leen di tàbbal te awma ku ma cay faale wala lu ma cay faale waaye wa haulaai ila naari wala ubaali ñii itam sawara laa leen jëmale wala yasu billaahi te awma ku ma ciy faale wala lu ma ciy faale bu xamee loolu dana xam ne kat kii muy jàng ay waxam ku kawe la boo dee xalaat ci yooyu ci ngay mën a teewlul màggaayab ki wax wax ji te mooy yàlla sunu borom tabaraka wa taala ci ngay mën a màggale tam wax jooji kon ñaari mbir a ngoogu mooy yow mi jàng alquran nga xam màggaayab wax jooju xam màggaayab ka ko wax bu ñaar yooyu weesoo nag nga teewlul sa xol te bàyyi waxtaani àdduna bàyyi lépp luy ay caaxaan ndax borom bi tabaraka wa taala ba mu koy waxee ci sóoratu maryam laaye fukk ak ñaar ne yaa yaxya xudil kitaaba bi quwwa am na ci borom xam-xam ñoo ngi ko firee ay bi jiddin wastihaad mooy yow yaxyaa na nga téye téere bii mala jox ci kàttan ñu ne mooy na ko téye ci farlu ak yitte woo ko ak fob sa yitte yépp itam nag bu jëm ci bañ koo jëmale ci leneen sunu bismillahi irrahmaani irrahim <coughs> kon am na ci nit ñu baax ñi ñoo xamante ni buñ masaa jàng benn aaya ba aaya bi jàll te mel ne yéeguñ ne jàng nañ ko da leen di jaral ñu baamtuwaat aaya boobee ngir mën a teewlu rek ñeenteel ba mooy settantal li ngay jàng seetantal nag mooy ngay jëfandikoo sa xel boole kook sa xol ngir gën a mën a génne ci alquran ak laay yi ngay jàng ay maana ak i yoo xamante nii soo settantalu toon mën nga caa bañ a yegg muy lu am solo nag lool ndax sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ci masaalikul naan ma nga doon wax naan benn aaya rekk nga jàng ko settantal ko xame ca loo ca xamutoon ba mën koo jëfe ji moo gën nga wàcce alquran jëpp bam jeex te soxol xol ànd càggante nee na loolaa ko benn aaya boobee la muy tuuti tuuti ci sa bët moo ëpp doole kaamil boobee nga wàcc te settantaloo ca dara waxut ne loola daa baaxut waaye lii da koo ëpp tuyaaba te jullit nag la ëpp tuyaaba la war war di gën di xante wo wa aayatun waaxidatun tudbirat fiha tafuuqu xatmatan anhu xalat ca masaalikul jinaan moo tax sayduna ali ibnu abi taalib karamallahu wajhahu waxoon ne jaamu yàlla li muy baax-baax bu àndut ak xam-xamu diine bu ko lal aw yiw di su ko ca séentu laa xayra fi ibadatin laa fiqha fiha waaye mu teg ca nag loo xam ne moo tax ñu indi waxam ji mu ne wala fi qiraatin laa tadabbura fiha nee na alxuraan joo xam ne yaa ngi koy jàng itam te doo ca settantal dara nee na duñ ca séentu aw yiw kon ñu xam ne booy jàng alxuraan nag nanga nga góorgóorlu ngir mën a settantal ba man caa génne loo xamutoon settantal googu yeggoon na ci abu darrin alxifaar yi mu waxoon ne yonent bi aleyhi salaatu jiite na leen naafila guddi guddig lëm ba jeex takk waaye nee na seetlu ne benn aaya la yonent bi di baamtu ba fajar jot ñu ne ko aaya jooja mooy wax jan mu ne ma nga ca suratul maida laaye téeméer ak fukk ak juróom-ñett muy in tuazibhum fa innahum ibaduk wa in taxfir lahum fa innaka anta al azizul hakim nee na laaye jii daal abu darri nee na seetlu na yonente bi guddig yépp lim fanaanee naafi la ñu topp ci ginnaawam aaya jooju la doon baabtu ngir settantal gu metti te mooy fa sunu borom sunu borom di waxe ne wala yonent yàlla isa fa mu doon waxee ak boromam naan ko yaa ngi nii jaam yaa ngi nii soo leen bugalee yaa leen moom ndax say jaam lañ waaye soo leen jéggale itam yoway boroom jikko yu baax ya mu ne yonent bi fanaan na ci jooju aaya di ko settantal ba fajar jot abu suleymaan yi itam wax ne léeg-léeg ma jàng benn aaya di ko settantal am ca ñeenti guddi wala juróomi guddi ngir yàgg ca te mu ne su ma taxawalutoon la ma cay xalaat sax man duma jéggi aaya joojee inni la atlul aayata fa uqiimu fiha arbaa aw xamsa layaalin walaw laa anni aqtacu lfikra fiha maa jaawastuha ila gayriha am na ci nit ñu baax ñi itam koo xamante ni nee na saar wiñ tuddee Hóot alayhi salaam suuratu Hóot am na ci juróom benn weer di ko baamtu ngir settantal gu metti te jeexalu ko baqiya fi suurati huudin sittata ashurin yukarriruha wala yafraxu min at-tadabburi fiha ku nekk xam ne ne kooku kon sori na ci settantal mu am lenn ci nit ñu baax ñi ñu waxoon ne itam man de nii laa doxale sama digganteeg alquran sama dund nii laa ko séddale sama digganteeg alquran ñu ne ko nu doon mu ne àjjuma ju nekk danaa ci wàcceb kaamil mooy ayu bis gu waaye weer wu nekk itam am na kaamilu boppam boo xam ne ca laa koy wàcce waaye at mu nekk itam am na kaamilu boppam boo xam ne ca laa koy wàcc lii fii kulli jumaatin xatma wa fii kulli sahrin xatma wa fii kulli waaye mu teg ci lu doy waar nag nee na walii xatmatun mundu salaasina sana maa faraxtu minha baadu am na kaamil boo xam ni nag ba ma ko tàmbulee ba léegi fii may wax ak yéen am na fanweeri at te noppeegu ci ku nekk xam na ne kooku kon sori na ci settantal moo tax moom mu waxoon loolu itam moo daan wax naan sama diggante alquran dama mel ni ab surga buñ jël ngay liggéey ñu lay fay benn nga waxtaan ak ka lay liggéeyloo mu lay fay bis bu ne wala ayu bis gu ne wala weer wu nekk wala at mu ne man itam sama digganteeg alquran nit ku baax kooku nee na noonu lay doxale am na kaamil boo xam ne bis bu nekk ma wàcce ko am na kaamil boo xam ne ayu bis bu nekk ma wàcce ko lu bokk ak bu njëkk ba am na kaamil bu nekk boo xam ne weeru jot ma wàcce ko bokkut ak ñett yu njëkk ya am na kaamil boo xamante ni at mu jot laa koy wàcce bokkut ñeent yu njëkk ya kon ñu xam ne alxuraan daal koy jàng bëgg nañ ca nga koy settantal ba man caa xamee loo xamutoon ngir man caa dégge loo déggutoon ba man koo jëfe ji kon ñu dikk ci xutba al imam moom itam ci alxuraan rek lañuy ñuy soññ nee na ginnaaw bi mu sante yàlla mi nga xamante ni moo ñu yar te jaarale ko ci téere bu tedd boobu di alxuraan moo sellal sunu jikko yitam te royloo ñu borom jikko ju màgg joojee di yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu woowe itam jëmee ci jikko yu baax ak waaraate ku baax ak waxiin wu jekk nee na alquran moomu nga xamante ci lañu yàlla yare mooy balluwaayu maandute ci bépp jamono ak bépp barab alquranu mambaul adalati fi kulli zamanin wa makaan ndax mu ne ka ko wàcce kenn la mooy ku am ku xereñaka te mooy yàlla tabaraka wa taala te yàlla moom moom moo wax ci alquran ne afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walaw kaana min indi gayrillahi la wajadu fiihi ixtilaafan kathira nee na daf ñoo digal ñu settantal alquran ndax buñ ko doon settantal danañ xam ne bu jóge woon ci keneen ku dul yàlla danañ ci gis ay wuute yu baree bare mu teg ca moom imaam ne yàlla kat bu ngeen gisee mu gënal diine yi lislaam ci mboolem diine yi du dara lu dul daf leen a wàcceel taanu jamono yi te mooy téereb yàlla boobu tabaraka wa taala kon nag mu ne suñ jëlee alxuraan teg ko ci sana sunu kanam di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem loola danañu doy sëkk ci wammat ñu ba tàbbal ñu ci njéggal ak yàlla ak yërmandeem ak ngërëmam waaye mu ne suñ fabee alxuraan nag sànni ko ci suñ ginnaaw nag loolu danañu sey doy sëkk ci wammat ñu àllaaxira jëmeñ ci alkande wala yaasu billaahi ak sawara mu wax ne ne yonente bi aleyhi salaatu nee na woon ahlul qur'aani hum ahlullahi wa xaasatu nee na waa alqur'aan ña koy jàng di ko jànglu di dimbale ña koy jàng ñooñee ñooy njaboot ak yàlla ñooy ña yàlla jagoo ci biir mbindeefam yi xutba bu ñaar bi itam mu soññ ci muñ won la ne bo bokk na ci liggéey yi gën a màgg te wàccuwaay itam wàccuwaay muñ fa yàlla itam bokk na ci wàccuwaay yi gën a tedd nee na waman kaana saabiran fa huwa almuminul kaamil kuy xëntewoo di muñ nee na kooka lañuy jàppe ka yàlla te ak gëm mat te kooka itam dana am loo xamante nii ña ko jiitu woon te daawuñ muñ daawuñ ko am ndax nee na ci muñ kat ci la nit ñu baax ñi jullit yu njëkk ya ubbi woon réew yi ba feeñal fa lislaam ba not ña fa nekkoon ba mujj nekk ñu am kàttan di boroomi xam-xam di boroomi alal jiite àdduna ji moo tax nag fa bi sabri yajidu kullu insaanin fi mawqifi alqiyaamati maa qaddamahu min saalihi al amali fi diwaan nee na ci muñu rek ci la doomu aadama mën a amee ëllëg bis ci ay jëf yu baax yoo xam ne daf koy jiital ca téereb jëfam ba ndax bu boobaa yàlla dana ko fa teertoo ak yërmandeem sottil ko ci tuyaaba jo loo xamante ni itam loo xamante deesu ko natt ngir bariwaay ba sunu borom tam dana leen gërëm ngir lam leen na toowoon ci àdduna tañ muñ ko waaye wa radiya ankum sayyidu di adnaan te yonent bi da leen gërëm sallallahu alayhi wa sallam kon ñoo ñaan yàlla sunu borom tabarak wa taala mu xiir ñu ci alquran ak di ko jàng ak di ko settantal ak di ko jëfe te xiir ñu ci itam ci muñ sunu borom mën na ko yàlla na ko def ñoo ñaan yàlla yàggal fi sëriñ bi tamay ku ba mu àggale mboolem naalam te ñu ànd ko moom wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu الحمد لله الذي اختار لنا شهورا وأياما وأياما لا يحصى ولا يعد فضلها نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا يضيع أجرها ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شمس الموجودات وبدرها صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة تتوالى وتدوم ولا يبلغ كنهها أما بعد فيا أيها الناس اغتنموا أوقاتا يقصر عن سعة الف... عن سعة فضائها يقصر عن سعة فضائلها الجو والفضاء wala tu'ridu anha wal mahrum man kaana anha mu'rida fa inna shahra muharram الذي نستقبل استهلاله عما قريب له فضل عظيم عند الله وشان وهو أفضل الشهور كلها للصوم بعد رمضان قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فلهذا الشهر مزية ليست لغيرها من الشهور ولا سيما يوم عاشوراء العظيم المشهور فإنه مشحون بالخيرات والفضائل مشحون بالخيرات والفضائل مشهور عند الأوائل عند الأواخر والأوائل وهو حقيق بأن يهرم ويصام ويحسن فيه إلى المساكين والأيتام ويتصدق فيه بما تيسر من لباس وطعام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 tanazzahu an hubbi dunya kay tafuzu ma'a al-faa'izin wa la tahtammu bi arzaaqikum fa inna Allaha huwa ar-razzaaqu dhul quwwati al-matiin fa wallahi qullat nufusukum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 ولقنوها موتاكم يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu hayya ala salaati hayya ala alfalahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fa sawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء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 allahu akbar sami allah rabbana wa lakal hamd allah allahu akbar allah أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقي من عين آنية ليس لهم طعام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 allahu akbar sami allah rabbana lakal asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون يعلمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا بهم قالوا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا في ريب مما نزلنا على عبدنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم الصادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الذين آمنوا سيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله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 للنور واكف عنه sëriñ Abibu mi nga xam ne moo njiitul Touba ci kanam ak mbooleem kuréel gi yëpp di am mbégte bu baax